tant bi mën nga ñu ko fàttali. Mouhamed Ngoti Thiam. responsable biscuiterie soo gisee tey ma ñëw fii. dama ñëw en tant que sénégalais. mais dama ñëw en tant que responsable APR. ndax ci membre fondateur xam nañu li ma gis nii depuis démb ak léegi suba ak léegi dama ci rus dama am kersa dama am gàcce. ndax Macky Sall Abdoulaye bi mu def nii. di ko toroxal nii. man dama jël responsabilité. di ko attaque ak di attaque Abdoulaye Wade te boobu maa ngi xaar ay responsabilité politique. mais ma xam ne liñ teg Macky Sall injustice la te booba maag Lamine Faye ñoo nekk chaque guddi. ak ku ñu wax Abdourahmane Fall Tilal ñoo nekk chaque guddi. Lamine Faye miy jéeg Abdoulaye Wade ñoo nekk chaque guddi ñoo am ñoo nekk. lañ doon nas début ba fay xamoon naa ma xeexoon Abdoulaye Wade demoon naa sax ba sortie bi doon def. dernière sortie bi. dama prévoir woon. attaqué Ablaye Wade ni moo rey Maître Babacar Seye indi preuve loolu la naroon xam nga loolu engagement mu ta weesu loolu te booba bëgg naa bañ naa ñu sacrifier Macky Sall mm-hmm. ma jël responsabilité mën a dëgg dugg kaso mm-hmm. pour Macky Sall mm-hmm. tey nag loolu moo amaat tey te jàppoon naa ne wees nañu loolu Sénégal dafa wee dépassé ni dépassé nañu li te li indi lépp leen la ñu wër Macky Sall ñu mel la Mahmoud Saleh trotskiste la xam naa ko xam naa ko baax man trotskiste ma formé Ablaye dama formé ñoo ko dugal lii ak le groupe président groupe parlementaire euh, euh, kii. Aymérou Gningue Aymérou Gningue. ak ñoom Djibril War ñoo ko dugal ci lii ak ñeneen te lii du baaxul ci moom. ndax xamal daal mais li ñu koy saaga guddeeg bëccëg saaga bu gën a ñaaw ñoo koy saaga Macky Sall ñun sax dañuy rus ni ay affaire lañu tellement que li am li ñu doon bañal Ablaye Wade di ko xeex pour Ablaye Wade tey moom lañu gis tey depuis hmm. ni Macky Sall arrêté le deuxième mandat hmm. nañu prévoir suñu parti hmm. am nañu candidat nañu prévoir suñu parti pour ku mel na euh, Amadou Ba. Hmm. man laa proposé. Hmm. en tant que Sénégal en tant que responsable hmm. en tant que membre parce que li ñëpp lu ko indi mooy deuxième troisième mandat. troisième mandat man mosu ma ci ànd. soo gisee ma suma jigéen la. waaw soo ma ànd ak moom parce que xam naa ni. li muy xeex moom moom doon bañal Ablaye Wade moom la ñu xeex Ablaye Wade tey duñ ko nangu tey. Mamour euh, euh, Moustapha Cissé Lo sama xarit la. Alioune Badara Cissé c'est mon ami. maa ngi leen lancé appel. ñu taxaw arrêté lii. d'accord sama adversaire la man sama noon la adversaire la ultime ànd maag Sonko de jamais suma sañoon du falu falu ànduma ak moom te duma ànd ak moom jamais parce que moom sama parti mais lii nii dafay sacrifier parti lii nii nii nii Yaya Jammeh defoon na ko Gambie mhm. Mhm. ray ñëpp. mais population bi sanctionné ko. wallaahi fa lañ jëm. ñu ñu sacrifier suñu parti. suñu parti. man dama am yéene am xalaat pour parti hmm. du ma nag ñu sa sacrifier ko. Hmm. jamais damay xeex pour loolu. ànd hmm. maag Sonko de naka ñëpp dégg. non grand c'est digne. ñëpp xam nañ ma am li lañ en dignité. d'accord rappelé ñu tur bi. Mouhamed Ngoti Thiam. coordonnateur mouvement Maka Ndiolé origine te li ma koy dolli aussi. li ma ciy dolli Macky Sall. ku ko bëgg la ñaaw ku ko yéen jàmm a mhm. bëggoon naa tudd ko sax ndax Macky Sall mhm. Sénégal xam nañu loolu ar Abdourahmane Faty Tall la kilifa gu mag la ñëpp xam nañu mhm. ay doomam may dégg moo ma ni ngoot yi mënuma mënuma bul bul wax loolu bul attaqué bul attaqué Abdoulaye ci wax jooju ndax bëggee du kaso man ko sëñ bàyyi ma du kaso jaral na ma ko ndax Macky nit ku baax la woon dañoo yàq xelam dañ ko a ci nga xam ne baaxul maa ngi ñaan na bàyyi nit ku baax la jullit la tey taalibi murid la na ngeen xam loolu taalibi murid la de dafa sukk jébbalu la de na xam loolu taalibi sëñ Tuubaa la mu